accord ñun li ñuy wax amuñu. dañu toog fii pour sénégale yi xam effectivement cette affaire là ni nga xam ni noonu la. d' noonu la deme donc neenaa la sànq menteur la prouvé naa la c' est un corrupteur dinaa la wax si kanam tuuti lan moo tax ma est un c' est un c' est un maître chanteur. alors sunu sœur boobu noonu bi mu demee ba interpellation yooyu xal ko sonal moom tamit comme effectivement euh, euh, Modou Diagne Fada tëjlu ko ay buntam elle s'en est ouverte à à lui. ko man daal am na benn ngóor su dëkk euh, fële Tëngéej ñu xas bokk koñ xaw ma ko nag mais ay nit dañ ñëw ci man euh, di ma wax ni euh, dafa bëggoon ma ma boole ko ak yow d'ailleurs mas ngeen gisee sax mais boobu ba léegi xëj na sa jot maytu ko mu te loolu yëpp sax yàkkamteem moom ma tax mu def ko parce que pour gis euh, directeur général Modou Diagne Fada wax dëgg yàlla amul amul amul amul jafe-jafe lool. mais ci moom parax paraxam yooy yëpp jot na ko fii def ba gën a dugal dugal boppam. ba ñu mun mm. toog di ko di ko di ko waxtaanee tey. donc bi bi DG déggee loolu mu ne ko d' accord y' a pas de problème ah d' accord diw non de toute façon d' ailleurs je le connais parce que je déjà rencontré circonstances yi ma la waxoon. Mm. après ñu recevoir ko Sonacos. tu as compris. Mm-hmm. gis nga bi ko jour bi ko euh, DG di recevoir day génn ci bureau DG bi man may dugg ci secrétariat bi ñu tase. mun ne man jaar naa fi sax ma ne ko d' accord mais bien donc yéen a ngi wax na kii daal dem sama yoon. d' accord alors bi loolu passé. Mhm. ndeke dafa ñëw moom. am yu mu proposition yu mu defal directeur général comme directeur général wax dëgg yàlla il pas né de la dernière pluie koo xam ne nag nekk nga ministre plusieurs fois ci réew mi lu nekk nga nga gérer ko ba agsi fi nga agsi tey bon du alfa Diallo moo la mun a. Euh, mhm. qu' est ce qu' il voulait concrètement Alpha qu' est loo loo xamul. bi mu ñëwee Sonacos. ci la ci la ci la jëm. soose bu ñu dalee rek mm. lépp dana dana dana leer mm. alors bi mu rencontré DG mm-hmm. defal ko ay proposition mm-hmm. euh, DG daal di koy euh, boole avec un comité technique comité technique boo xam ne le secretaire général de la Sonacos moom moo ko jiite ci biir comité bi contrôleur de gestion bi mu ngi fa woon ci biir comité bi même sunu euh, chef n'est-ce pas de la la responsable de la direction financière mu ngi fa woon ci biir comité bi vraiment. Mhm. le staff directionnel. d'accord de la Sonacos. ñoom ñoo nekkoon ci ci comité boobu ñu recevoir Alpha pour déglu ko. Mhm. genre audition pour ko aussi mu wax leen li nga xam ni moom moom lay moom lay moom lay doyee moom lay doyee Sonacos biñ ko dégloo euh, mu proposé leen ne leen moom kat dafa am ay pexe yoo xam ne buñ ko ci buñ ci àndee ak moom mën na fexe fexe ay la yéwén ba suñ diwlin ji ñu di ko jaayee litre quatre cent. Mhm. ci réew mi. mu ne pexe yooyu aussi buñ ko ci dégloo moom mën na fexe ba sonakos euh, prestataires yi nga xam ne daf leen di liggéeyloo ci wàllu xolli gerte gi euh, loolu euh, ak ak nal bu njëkk bi maanaam diwlin boo xam diwlinu segal la. Mm-hmm. huile brute. Mm-hmm. Sonacos gën ci am ay rendement yoo xam ne yu yu ëpp yi nga xam ni moom lay am moom lay am tey la gaa ñi déglu ko ne ko loolu naka naka la mun nekkee naka nga mën a fexe yow ba am procédé boo xam ne di nga jaay et comme li mu wax rek. Euh, euh, ñu seetlu au sortir de cette euh, rencontre là que li jàpp ñoom. Mhm. te ma koy wax fii tey mooy waa ji dafa mel ni sax moom yembul. parce que li mu leen defal ci ay propositions véritablement amul ci amul ci. Mhm. tegul fenn lalawul également ci ci ci lenn. Mhm. donc ñu ne ko ñu ne ko baax na dégg nañ la terewul terewul comité bi proposé ko moom alfa pour rek le mettre à l'épreuve ni ko daañu la jox ñetti camion wu euh, gerte. Mm-hmm. boo jëlee camion gerte bi moyennement dina def euh, benn bu ci nekk euh, vingt deux vingt deux tonnes à peu près donc un peu moins de soixante dix tonnes genre soixante cinq soixante six tonnes yoo xam ne ñu ne ko daañu la ko jox nga yóbbu ànd ak waa sonakos te fa ngay liggéeyee nga wan leen méthode bi ngay def yow ba li ngay wax ni mën a am mu bañ. ah bon ah oui loolu bind nañ ko ci communiqué bi mu leer nañ te moom du ko weddi et on l'a reçu fois. yoo xam ne date yaa ngi fii ci sama. mais c'était quoi c'était quoi l'objectif euh, sachant kii li muy wax xëy na am mënu ko mënu ko def euh, amul unité ba pare ngeen jox ko ñetti camion c'était quoi pour pourquoi vous aussi vous l'avez fait. waaw waaw xam nga xam hmm. nga xam nga sonakos hmm. dafay liggéey effectivement ak ay prestataires. parce que li ma la wax sànq kër gi dem na ba toll foo xam ne ci wàllu ay machine am. Hmm. li muy collecté des fois ci gerte diggante campagne ak campagne euh, gaaw na gaawul balaa mooy egsi dana ko bëgg nal. liggéey ko def ko def ko def ko diwlin dugal ko ci ci ci ci ci marché bi donc am na ay yoo xam dañ nekk également ci réew mi am seen i machine duñ duñ Sonacos nag mm. dabu ñu Sonacos mm. waaye lu lu mu bon bon mën nañ liggéeyal Sonacos ci xollil ko gerte lu mu mm. bon bon mën nañ liggéeyal Sonacos ci nalal ko diwlin muy diwlinu segal nga xam ne réew mi yëpp xam nañ ko boo demee Touba tey ñu ko fay dundee bari nañu mm-hmm. la mu fay dugal ci économie ak ci koom bari nañu loolu kenn bañu ko donc euh, Sonacos bu mu nee participer ci développement wu ak épanouissement ay PMI PME à travers moom matière première ñoom tamit ñu ci soqaliku di ci am dara lu ñu yóbbu seen njaboot daf koy def. Mhm. donc Alpha loolu la doon dàq si. mais daf ko dàq daf ko daf ko def ci jubadi ci ñaari niveau benn bi mooy tudd na fii wala xëy na tudd ko mais man dinaa ko wax parce que damay leeral. Mhm. benn benn association boo xam ne mu ngi tudd Raziat Raziat nekk Touba. nga xam ni principalement Modou Diagne Fada moom directeur général bi muy ñëw Sonacos ñooñu ñoo nekkoon prestataire di gën a mag. ci wàllu liggéey bii ma la doon wax ñu bari xam nañ leen Touba. Euh, ay kilifa nekk ci góor ak yu jigéen ñuy ñuy ñuy Sonacos leen jox gerte ñu di ko nal di ko delloo euh, diwlinu diwlinu segal bi di ko jox euh, ràkkal mm-hmm. Alpha dem fa d'ailleurs buy wax ne moom dafay liggéey sa Alpha n'a jamais travaillé avec la Sonacos dégg naa ko naan bañ ma joxee contrat man na c'est pas vrai mm-hmm. lépp loo xam ne jot na ko muy ñaari kilogramme gerte mm-hmm. mu jógee ci sonakos du Sonacos moo ko moo ko jox moom en tant que Alpha Diallo wala këru liggéeyukaay boo xam ne ci léegi parce que nee naa la ci début émission bi que ne amu ko. Mm. mais xëñ dafa dem te ña ko Sonacos digaaleel ñooñu sous-traiteel ko ko est-ce que yaa mm-hmm. ba fi ñu toll nii. d'accord alors ñooñu nag nga xam ne ñooy Rasiat ñoom la Alpha bëggoon a suuxlu parce que ñoom laa dégg muy wax ne. ñoom ñoo dem bu ñu nalee diwlin ji dañ ciy am lu ëpp loo xam ne duñ ko duñ ko duñ ko signaler en fait waa waa waa Sonacos ñoom laa dégg aussi mu toog fii ci plateau bi di wax ni ñoom ñoo am benn excédent wu je pense 2 millions ba mu demee moom moo def 2 millions bi ci excédent lañ ko joxoon ba mu demee di leen ko jéem a delloo ñu ne ko ah yow nag yéen waa Dakar yi da ngeen euh, doy waar boo ñëwee ci dëkk fekk ñëpp simmeeku da ngay def yaramu neen loolu fi la ko wax ci donc ñooñu dugal te ñooñu tam fi mu nekk nii hmm. euh, daañ ko topp ci yoon ah bon ah oui Alpha moom moom ñu koy topp bari nañ de. d' accord d' accord daañu ko topp parce que ay kilifa lañu. Mhm. souvent ay ay kilifa lañu yu dëkk Touba euh, yoo xam ne ñu ñu am seen honorabilité tey tamit lim leen tuumaal ci ci ci ci télé bi. Mhm. ñooñu tamit daañ ko daañ ko topp ma ciy nuyu. ma ciy mhm. nuyu au passage. Euh, suma euh, sunu sunu sunu xarit. boo xam ne daañu liggéeyandoo ak moom. muy Ousmane Ousmane Diakhaté. d' accord d' accord Babacar est ce que est ce que c' est vrai que Alpha indi ko Sonacos jox leen ko et que directeur Fada lui-même promettre ko ne ko dinañ la defal contrat de de de prestation ou de prestataire je sais pas comment vous l'appelez est-ce que d'abord eggoon na seen co seen seen link ak alfa eggoon na ci niveau boobu linku directeur général ak Alpha mu ngi am ca Paris ba mu ko njëkkoon ba mu njëkkoon tase ak moom. Hmm. ak amul amul beneen beneen lien bu dox seen diggante ak audience bi mu bi mu ko bi mu am ak moom bi mu ko seet see euh, direction général dégg naa Alpha d'ailleurs toog fii waaye yor naa numéro maag moom daal nañu ootante Alpha nañu génneel benn appel rek benn. Hmm. boo xam ne moom président Fada jël na téléphone am di ko oo moom Alpha moom. waaw ah Alpha mais il faut il se prend pour qui. yaakaaroon na am na loolu ah oui ça ça n'existe hmm? pas ça ça n'existe pas ñun ay collaborateur euh, directeur général. Euh, euh, Fada ne l'a jamais appelé. non non toi aussi xam nga donc bu fekkente ni que dafa wax ni moom dañ dafa am benn rapport bu mu bu mu bu mu liggéey jox ko DG DG jël rapport bi par la suite exploité ko c'est pas vrai parce que bi mu seet see DG moom daf ko daf ko jël. au le secrétaire général de la boîte ñu former le comité technique bi ma la doon wax nii léegi. Mhm. comité boobu ñoo ko recevoir. bi mu ñëwee ci comité technique bi je veux dire est-ce que bàyyiwoo fa ay documents yoo xam ni. non bàyyiwoo fa lu mu waxtaanee woon la ak DG bu yàgg. pas du tout il n'a produit aucun document aucun rapport amul benn pièce boo xam ne bu mu leen bàyyee la. il était venu discuter waxtaan ku nekk jël ay not et les gens sont rendus compte que le gars daa mel ni bopp bi bopp bi bopp bi feesul. ñu ko yi ñu ko proposé pour le confondre. Mhm. parce que aussi gis nga euh, Socé Sonacos ay kilifa ñoo fa ne c'est des ingénieurs bien formés de haut cadre chacun dans son domaine ñoo xamante ni dañuy xëy di liggéeyal réew mi suba ba ngoon jot benn gune gu ndaw mënoo jógee fële kenn la nga ñëw mm. di leen fontoo dañ lay teg ci ci ci ci ci ci ci gayeb d'accord bu ñu ñëwee ci yeneen point yi vraiment wax na aussi ay ay ay révélation man révélation laa koy tuddee peut-être ah, yow mën nga ko